salaamaaleykum tout le monde maa ngi maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp bëggoon def ben ben explication bu gaaw rek seen fait Abdou Karim Gueye activiste membre du mouvement Nittu Dëgg alors li jitu d'abord moy man damay nuyu ñëpp quoi di jéggalu ñëpp parce que olof day wax fa yow yegg du man eggu fa te instant yi gars yi nekk ci guerre guerre médiatique communication boo xam ni dañuy dénigrer waate di yàq di wax ak yoo xam ni dara leeru leen si man dama bëggoon rek pour expliquer mu ñu comprendre carrément li tax man ma refuser na man du ma signer ay sous contrôle judiciaire parce que dama gëm ni man gisuma sa raison d' être

man nek man ma génn bàyyi leen si kaso bi te ñu ma doon xeexal man ma ñëw taxaw di signé ay liberté provisoire di génn di di dox ci dëkk bi nice ay nit di xeex di xeex di ma xeexal ma dem mel ni comme si de rien n'était man loolu du ma ko def léegi nag justice dañu bëgg mu indépendante mu indépendante dañ koy xeex te xeex du yem ci ay wax rek ni ñu koy jëfee mooy il faut sénégalais bu nekk comprendre nak nga war a xeexee ñu fexe ba justice bi indépendante pouvoir judiciaire nekk fi pouvoir exécutif taxawee ne pouvoir législatif taxawee ne ku nekk am sa dooley bopp loolu mooy état de droit loolu mooy république te loolu moo tax man sous contrôle judiciaire lan lañ def ñun ba signé sous contrôle judiciaire lan